Baba Ndiaye. Yes. secrétaire général adjoint du SAEMS IF Thiès-Ville et secrétaire à l'organisation et du SAEMS syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire ci région Thiès. tey dañuy euh, dàqal ñu njàng mag njàngale bi pour euh, la journée de tey mooy mooy bésu tey bésu euh, mardi bi 6 novembre lu tax ndax euh, dañoo gis ne euh, état bi lu ñu xaatima ak moom ci ay euh, ay accord def ci defu ci lu bari walla bokk am na yu bari yi nga xamante ne état dafa mel ni day day yéexantu wala day def lu ñuy naan dilatoire maanaam dafay bàyyi mbir mi mbir mi taxaw noonu du oote waxtaan di ci def ay jéego lu mel ni euh, euh, situation lenteur administrative maanaam yéex yéex euh, bu état yéex ci mbiru dossier enseignant yi carrière enseignant yi beneen bi ci des beneen bi mooy ci carrière enseignant yu ñu naan décisionnaires yi seen situation mu ngi taxaw ba léegi beneen bi formation enseignant yi ci FASTEF Euh, ak euh, euh, mbir yu bare bare bare surtout lu jëm si wàllu kayitu enseignant yi maanaam avancement yi rappel yi surimposition yi lenteur administrative moom mooy yéex yéex bu état yéex ci di di di di lijjanti ay situation de carrière enseignant yi moo waral moo waral ñu di ko di ko di ko di ko fàttali ne ko li nga waroon a def defoo ko bokk na ci tamit euh, situation DMC yi situation euh, euh, les parcelles viabilisées yi les actes et consorts loolu yëpp mu ngi ci taabal bi ñuy fàttali état ba pare muy menacé foofu mooy wax lu tax ñuy menacé te xam nañ ne souvent menaces yi fu ñu koy kii Euh, fu ñu ko teg mooy euh, ay loi la ak ay règlement premièrement constitution moo may jàngalekat yi bu ñu amee lu leen metti ak yeneen liggéeykat yi ci fonction publique ak feneen am nañ droit ñaxtu ñaxtu nag dafa bari façon bi ñaxtu moom la ñuy tuddee journée morte maanaam euh, alerte la daal pour opinion bi ak surtout état bi opinion nationale et internationale ne boo demee ba xaatim ak nit ki walla euh, état bi bokk ba euh, bindal ko si ay këyit mu leer nañ ñëpp yëg ko ndax grève bi taroon na fi lool voilà donc xaatim yooyu noonu ngeen xaatim d'accord ci ay point point yooyu kenn ci ñaari parti yi deful lu ko war mooy état ci la nekk ñu koy fàttali muy menacé muy menacé nan euh, am ngeen droit grève wante da ngeen war a yéegal ba pare yéegal bi moom mooy préavis préavis xam naa ne soit xamuñu wala dañoo bëgg a nax population bi ndax population ñenn yi xamuñu mais eh, préavis de grève un an lay durer préavis bu daaw bi mu ngi en cours jusqu'en fin décembre donc waxu préavis moom waxu waxu waxu yi nga xamante ne la moom jarul wax ko quoi. préavis bu daaw bi ba décembre lay jeex bu décembre jotee bala ñuy def beneen action dañuy yëgal defaat beneen préavis préavis boobu 12 mois lay durer donc waxu préavis moom nañ ko teg fale waxu menace tamit nañ bàyyi di menacer ay enseignants parce que vraiment ñu ñuy menacer. Euh, ils devront pas waruñu koo def ay menaces la ay menaces la naan même les accords là mun nañ ci delluwaat yooyu xam nga wax wax ju yàqu la ndax déjà accords yi c'est pas d'abord enseignants yi rek enseignants yi ñoo ko xeex ba ñu def ay yenn jéego yi ci carrière fonction publique yi gars yi di fa ñu fa liggéey mais euh, euh, accords yooyu noonu mais ça ne concerne pas que des enseignants les travailleurs santé bi mu ngi fii justice mu ngi fii ak ñeneen ñiy liggéey ci fonction publique muy benn deuxièmement biir enseignants yi tamit fii SAEMS CUSEMS alliance boobu ñoom ñoo nekk en mouvement tey mais yeneen enseignants yi yeneen organisation syndicale représentative enseignants yi c'est-à-dire yenn affaires yi moom xam naa ne moom da koo def rek mais dañ koo def mais waruñ koo def parce que da ngay tax ni ñuy gën a fipp année bi gën a xam nga nax saay voilà boo yorelee nit da nga war a négocier mais doo doo xuuxalaate doo voilà doo doo tiitalaate cest à dafa am périodicité dañuy xaatim boobu bokk na ci ay accord ne euh, nangam euh, temps maanaam ñaari weer bu ne wala ñetti weer bu ne wala temps bu ñëwee rek war nañ toog waxtaan ñan ñoo war a toog waxtaan dafa war a dafay am ay comité de suivi wala ay comité de veille yooyu am na fi c'est-à-dire dañuy def ay ay ay ay organes mais organes yi du dox normal léegi nag ñun lu ñu war a mën a def en tant que syndicaliste ay organisation responsable lu ñu war a mën a def bu ñu ko defulee ñu tollu fenn rek état deful lu mu war a lu ko war mais ñun dañuy def lu ñu war moom mooy jàng jàngale di gérer yenn situation ay col te te te situation yi dafa métti ñëpp xam nañ ne instant yi nii dafa métti parce que état dafa wàññi lu bare bare bare bare ci ay kàttan kiiw kiiwu école yi dafa war ñu budget yi ñëpp xam nañ ay abri provisoire bari na fi ñëpp xam nañ ne enseignement enseignant yi dafa manqué niveau bépp niveau yëpp la enseignant yi dafa manqué abri provisoire yi tar fi ba pare budget état bi eh, eh, si école yi dañ ko wàññi wàññiwaat. xam nga élèves yi ñoo ko bokk xale yi comme nuñ koy wax faral di wax. ñun ñoo njëkk a nekk euh, parent d'élève man sama sama doom su ma génnee doomu jàmbur yi ma ñu jibbi samay doom ñu koy jàngal dañ dañuy dañuy génn ñoom tamit c'est-à-dire affaire bi affaire du foofu fan la ki war a gere loolu mooy état moom moo jël responsabilité ne day kii yaa laaj réew mi yaa laaj euh, euh, secteur éducation buñ la ko falee bu lee munoo ko nga baax maanaam ministre bi nga xamante def nañ la ministre de l'éducation munoo ko bàyyil loolu xew na fi fal nañ fi nit ministre de l'éducation nee na munul ndax lii daa diis bu diisee bàyyil keneen yow fii am na ay compétence ñu ko mën a gérer boo ko munlee nga bàyyi au lieu nga nekk fii di menacer ay enseignants loolu wax ju yàqu la. noo lii alerte la li mu première action bu ñu alerter euh, année scolaire mais avant avant avant ñuy toll fii. newoon nañ fi defoon nañ fi euh, euh, euh, comment dirais-je la conférence de presse wala point de presse wala yenn rencontre yi di waxtaan ak journalistes yi ak askan bi ne leen état nag xaati xaatimoon nañ lii ak lii ak lii jamono sangam deful lii deful lii deful lii fii moom commencé na dara mais fii jéemul sax ñu koy alerte di ko alerte di ko alerter ba tey ñu tollu fii au lieu nga oote ay waxtaan au lieu nga négocier au lieu nga nangu ne yaa yoral nit ki. wala nit ñi mais nga nekk fii di menacer menace yooyu moo dul jàll duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg en daal comme d'habitude politiciens nañ ñu bàyyi na ku ñëw rek bëgg a bëgg a dal ci enseignants yi loolu jaaduwul ñëpp xam nañ ne fii ñoo dàq xëy ñoo dàq euh, xëy heure ñoo dàq wàcc heure te jamono ji daa tàng tàngaay bi nga xamante ne buñ la dugalee ci benn salle entre quatre murs ak cinquante soixante quatre-vingt cent élèves te yooyoo xew ci dëkk bi ci réew mii nii am na ay classe de cent élèves am na classe de quatre-vingt soixante dix bu tuutee ba tuutee ay mais c'est-à-dire nit ñaa ngi dóor waar ci yooyu condition souvent su su dans les huttes et abris provisoires dans les zones les plus reculées du Sénégal nit ñaa ngi xar seen tànk tubéy di def li leen war ba pare euh, euh, euh, ñu ñu ko seexal ñoom tamit moom mooy gouvernement mooy état nañ def li ñu war a def ñu bàyyi di euh, euh, euh, ŋàññi ay enseignants di leen menacer population tamit dañu war a xam ne enseignants yaa ngi si naaj bi ñoo ngi si taw bi ñoo ngi si ay conditions yu yu metti di tee xale yi voilà donc dañu leen war a may cër lu ñu xaatim ba pare d'accord ci ñu def ko bu bu loolu année bi année bi daal bu amee problème ñëpp xam nañ kan mooy responsable du ay enseignant état la